am na nañu ci mbett moo xam ni ak xéewal yoo xam ni mënuñ ko woon a yaakaare feneen fu dul fii ba tax na maa ngi woo bokki jullit yépp ci lii ndax njariñ la ndax xéewal la naa ko ñëpp maa ngi koy yéene bokki burit yi suñu bokki taalibe rawatina nag cantakon danoo am loo xam ne lu jombe la liggéey bii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 suuf si suuf see xeer yi suba la war a def sëkk bi na ko maa ko yëgal cantaakoon yi fu ak fu ma waay di dégg rek nañu xam ni njariñ a ngi eh, xéewal ñëw na liggéeyal sëriñ Touba egsi na ndax lu mel nii kat daa jafe waaye fii ku fi tàbbi di nga nawaat sëriñ Cheikh di nga ko bëggaat nii mu def kër sëriñ Saliou gi